benn weer ginnaaw woote dialogue nga xam ni njiitu réew mi Macky Sall daal ko def diggante waay politique yi ak ñi fare ci société civile la ñu xam ci lu nar a tukkee ca yooyu waxtaan ba nga ni daanaka xamaguñ ci dara ci dëkk bu normal dialogue warul demee nii. ci jaloog bu dëggu waaye waxtaankat yi dañoo war a déggoo ci naka la war a demee ak la ca nara tukkee fii ci Sénégal lañu nemmeeku moo di ni daanaka dañuy jaawale mbir yi wooteeg njiitu réew mi daanaka mu commencé jur féewaloo ci waay politique yi rawatina ñi fare kujje gi ñenn ñi yàkkamtee xam kañ lañ ko nar a amal koppar ga ca nar a tukkee waaye itam lañ ca nar a gañe ci wàllum politique fii ci Sénégal daanaka lépp dañ koy waxaale. tontu yi nga xam ni daal dina tukkee ci ñaari njiit yu coalition Yewwi Askan Wi di Ousmane Sonko ak Khalifa Sall daanaka wuute na lool ku njëkk ki d'accordul benn yoon ci wooteek njiital Benno Bokk Yaakaar ak itam ci candidature am ci présidentielle batum 2024 ka ca topp mel ni am na yéenay jaloge yeneen njiit yi nga xam ni bokk nañ ci Yewwi Askan Wi nekk ay candidat déclaré itam déggaguñu seen ay position mu mel ni ñi sekk Yewwi Askan Wi amuñu xalaatu organiser ab débat seenu biir parti démocratique sénégalais ak yeneen njiitu parti yi ñu nekk candidat am déet daldi dinañ fësal seen yéene bokk ca dialogue boobee euh, ci diggu opposition boobee nga xam ni daal na féewaloo nguur gi daal dina fësal yéeneem mu di fexe ba wàññi doole ku gi mu mel ni waay politique yi ci waxaale gu metti lañu nekk ci wàllum élection ci ndoddu askan wi ak institution yi nga xam ni ñoo leen tënk. dialogue nekkatul benn yoon loo xam ni dafay dooleel démocratie wala code électoral wala sax ab élection boo xam ni dal dina jaar yoon waxtaanee tuñ benn yoon lu soxal askan wi lu mooy lu ñuy def ba toog wala jot ci nguur gi loole mooy politique gu jamono jile loole tax askan wi commencé ñàkk yaakaar ci waay politique yi bu mu bett kenn su dee ni askan wi demuñu wote ji seen digganteeg waay politique yi demeetul noonu am na nëgën yi ay ati at